di nuyu madame la secrétaire générale bu chambre de commerce di nuyu participants yi nga xamni ñom ñoo ñëw participer di nuyu staffu chambre de commerce bi fi nekk yëpp di nuyu aussi presse bi donc de naa fi ay services yu am importance ñoo fi dajé ak ay kuréel yu am solo organisation professionnelle yu am solo ñoo fi dajé yaakaar naa ni def nañ fi ab diir ab ab lu mat semaine wala deux semaines di fi yokk seen xam-xam mu nekk lu am solo ci programme bi nga xam ni pour jàng nan la ñuy organiser événementiel moo ko waraloon def naa ni vraiment ngeen def ko ba tey ñu leen di jox seeni attestation donc euh, président dafa wax ni nañu reconnaître bu baax a baax a baax taxawaay boobu nga xam ni SACCO Canada am na ko ci côté chambre de commerce ba ñu man def lii ñuy def tey wax na ni aussi pré chambre de commerce bi ak SACCO seen partenariat yàgg na man naa ni mu ngi daté presque 2010 ba tey mais toujours formation toujours ànd bi mu ngi gën di rafet mu ngi gën di taaru mais li ñu dëgmal def tey muy le manuel de procédure ci façon bu nekk ci wàllu économie ak commercial ak maanaam def élaborer ay plan d'action pour événementiel defe naa ni loolu nekk na loo xam ni lu am solo la loo xam ni tey yaatal nañ ko te lu ñu war leen ci gërëm parce que mënoon nañ yem rek ci ay acteurs chambre de commerce dari fay liggéeyal mais xam nañu partenariat bi am ci chambre de métier ak chambre de commerce ba tax ñu demandé ñu ñu jël suñu suñu suñu agent indi ko fi pour ñu yok xam-xamam ci fan kon ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu di féliciter nak service yi fi dajé yépp ñi tew ak ñi tewul ci courage bi ñu am pour jang xam-xam bi ba ñu war ko restituer war ko jéxal tay ñu war ko tënk ak ay ay remise des attestations Le naa ni loolu ah suñu ko continuer wéyal yaakaar naa ni dinañ gis njariñ bi surtout que nag na am suivi bu baax incha allah kon du ñu ci remercier aussi format yombalkat bi muy le formatrice Hélène hein? donc euh, wax nañ ni ku dynamique la mais ku disponible la aussi ci kanamu ñi mu doon formé hein? aussi kon loolu tam lu ñuy saluer le ndax jóge ci benn son boo xam bi xaw na am tuuti différence ak Afrique nga ñëw ci suñu biir pour 15 jours nga adopté wu ak ñoom ñun biñ ñu duggee rek xam nañ ni relation bi déjà eh, am na solo trop am na. Hein. kon loolu vraiment ñu ngi ko ci félicité moom waaw ah, di wax ni nag xam-xam moom du du màggat quoi. xam-xam presque kii dem Sénégal ñun dañu c'est que ni ñu nasee jamono booy amee 70 ans boo amee 60 ans nga war a commencer nekkaat en activité ci beneen anam. donc parce que fekk na nga capitaliser ci ci expérience loo xam ni. tey ki génn tey ay ay diplôme même bu la ëppee ay diplôme du ko mën du ko xam. foofu nag lañ lay lâché vraiment nga dellu sa kër. Mhm. alors ñu loolu tax loolu andi na ay ay tardement yu bari ci àdduna bi. waaw mais ku mel nii nga xam ni tey xam-xamam ak xelam dafa daf ko desee ba pare am am gañewaat liberté am kooku moo neex a jàngloo moo neex a jàngal moo moo neex a laaj bu ko defee ñu ngi koy encouragé bu baax di ko félicité di ko ñaanal fond gudd ah vraiment di di di di tënk foofu kàddu gi nag di remercier nag bu baax pour la presse parce que ñoom ñu am solo la vraiment fu ñu nekk ñoom ñu fekk ñu fa surtout que Thiès Info ah kon ñu ngi leen di remercier bu baax donc asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala aura une formation euh, sur l'efficacité énergétique donc, euh, sur les techniques d'utilisation du solaire, euh, des eaux et tout ce qui est énergie renouvelable. Et vous savez qu'au Sénégal, on est à l'ère de l'énergie renouvelable. Donc là aussi, vous êtes tous invités selon vos, selon vos, vos, calendriers, n'est-ce pas Et nous vous demanderons, comme vous avez eu à le faire, de nous confirmer au plus tard, mercredi ou jeudi, pour les besoins de l'organisation. Voilà, je pense que passe ça c'est un domaine. Je pense qu'on a fait la requête d'abord pour les agriculteurs, mais je disais tant au président de la Chambre de métier que les artisans qui utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup l'énergie, je pense qu'ils sont aussi euh, conviés à cette formation. L'essentiel, c'est qu'on ait la liste définitive au plus tard, mercredi ou jeudi au plus tard, pour nous permettre de bien nous organiser. Parce que quand le volontaire vient, la première journée, il la passe ici au niveau de la Chambre de commerce et on est obligé de faire tout le calendrier par rapport justement aux besoins, par rapport au profil des apprenants. Voilà, donc je m'excuse d'avoir pris la parole parce que ce n'était pas prévu, mais puisque la règle a été faite, il fallait que je tout partage avec vous l'information. Je suis volontaire. <laughs> voilà, je pense que Hélène, c'est à toi. Merci Madame la Présidente, et à tous les invités. Euh, Demain. Euh, malheureusement, je ne prononcerai pas les noms parce que je risquerais de me tromper. Mais euh, je veux certainement souligner le fait que je remercie SACO qui, à travers son implication avec le Sénégal, euh, m'a permis de venir ici vous rencontrer, de venir à votre rencontre pour une première fois au Sénégal. Et je vais vous dire honnêtement, merci aussi à la Chambre de commerce qui m'a bien accueilli, qui m'a guidé avec les gens qui y travaillent. Et un gros merci à ses participants, à mes participants à la formation, parce que avec eux, oui, j'ai amené un certain savoir. Ce savoir, qui vous appartient maintenant. C'est vous qui allez le partager avec vos confrères, consoeurs et les gens qui en auront besoin. Mais moi, je vais vous dire que c'est moi aussi qui en sors beaucoup enrichi de ce partage qu'on a eu durant les deux dernières semaines. Et j'ai beaucoup apprécié euh, votre pays. Et comme je dis, euh, j'ai déjà dit à des gens, vous savez, vous êtes reconnu pour le Teranga. Alors, ce n'est pas juste un mot ici, c'est un fait. Les gens sont accueillants et j'ai beaucoup apprécié. Alors, merci de votre participation à tous. Je sais qu'à travers vos, euh, organisations, vous êtes en mesure de promouvoir euh, ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et puis, euh, je suis toujours disponible. C'est vrai, c'est de l'autre côté de l'océan, mais maintenant, avec l'Internet, on est tout prêt mmh. Alors, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. je souhaite une belle continuité dans chacun de vos domaines. le Sénégal a besoin de vous comme homme d'affaires. Il a besoin que vous intégriez votre jeunesse, parce qu'elle est riche, la jeunesse. Et moi, j'y crois beaucoup. Alors, vous souhaite euh, une belle consommation, pérennité dans vos actions, dans vos œuvres. Merci, beaucoup Je m'appelle Ella Jouf, je suis le représentant pays du service d'assistance canadienne aux organismes. alors nous avons une ñëwaat euh, formation de nga xam ngeen ko chambre de commerce. waaw euh, avec chambre de commerce nous nous une maanaam formation pour la euh, chambre de commerce waaye ak ñi nga xam ne dañu nekk Thiès yëpp ci nekk ay acteurs économique euh, formation bi nekk solo bi mooy naka la ñu mën a organiser des événements commerciaux. des événements commerciaux fi bir Thiès parce que tay so len ni gisee taxawaayu région de Thiès ngén xamné ne bu am solo la ci développement économique du Sénégal loolu loolu motax ñu yaakaar ne donc activité économique dana gëna bari bëri Thiès donc wa ñepp ñu nga xamné ño nek bir biir Thiès ñu yore ay institutions yu mag yu melni chambre de commerce yu melni chambre de métier ay ANCAR yu démé non nga xamné vraiment ñoy acteur économique de base yi xool ñom naka luñuy préparer pour mëna préparer pour mëna am des événements commerciaux manam naka lañ koy organiser ba nga xamné soko défé ko defee dana mën jaar yoon ñi nga xamné ñu ngi ci biir réew mi ñi nga xamné ñu ngi nekk bitim réew da ñu mëna ñëw bé participer ci événements commerciaux yooyu. lool motax euh, ñu euh, organiser formation bi ak suñu ben expert bo xamné dafa joggé Canada ñu ñu koy wax euh, NL Penul mu nekk fi pendant deux semaines ak ñom tëju fi ak chambre de commerce pour jàngale leen événement commercial bu jaar yoon naka lañ koy organiser ba nga xam ne yow da nga ci euh, maanaam da nga ci am li nga bëgg. alors euh, ci wàllu wi euh, transdanse bi ñan ngeen ciblé ci wàllu formation yi. waaw ci wàllu formation bii ñi xam ne moo weesu nii amul benn tranche institution yi ñoom ñooy xool ñi leen doy. ñi nga xam ne ñooy liggéey ci secteur boobu ci seen biir institution ñu ne leen a ah, formation bi SACCO di organiser ak chambre de commerce soo leen demee ngeen participer ci formation boobu. ñun nag amuñu benn tranche d'âge soo xoolee ñun suñu biir programme fii sax amul benn tranche d'âge du Euh, ñi nga xam ne ay retraité lañ bokk mën nañ bokk ci formation yi ñi nga xam ne tam ñu ngi liggéey ak xale yi sax mën nañ bokk ci formation bi ça dépend rek ci naka la chambre de commerce organiser formation bi waaw. Mm-hmm. alors euh, ci beneen wàllu wi tey dañuy xool ni Thiès am na yeneen euh, opportunité yu bees ak ubbite aéroport bi ak port de Dakar bi ñu war a toxal mu ñëw Ndayane. Mm-hmm. ak yi ni mel tey yéen en tant que ay organisation de base di accompagner yenn institution consulaire yi ak yenn kii naka ngeen gisee tey Thiès ëllëgu Thiès waaw ëllëg Thiès moom vraiment avec beaucoup d'optimisme am bu parce que Thiès léegi tey soo ko xoolee dara mënuñu ko def te waxuñu région de Thiès. wax nga aéroport wax nga wax nga port bi nga ñu ngi a ci opportunité ñu ngi euh, carrière donc loolu dafa tax Thiès niveau ci développement économique du Sénégal loolu dafa laaj

Euh, ñun wa sako nga xam ne coopération canadien lañ nekk nga ne gouvernement Canada mo ñuy financer li ñuy def moy ñu liggéey ak ay chambre chambre de commerce ci ay programme yu lu wóor programme yo xam dina mëna tax bép secteur économique bu nek bi région de Thiès ñu jappalé la bi nga xam-xam bi nga am taxaway bi nga ne war nga ko am dang ko mëna dang ko mëna jëfé waxé ko pour que euh, échéance yi nga ne mu ngi ñëw nga ngeen ngeen mëna ngeen mo a yore sen région euh, yore bi nga ne la ñëpp di xaar ci yeen alors est-ce que chambre de commerce oui, c'est une seen i bug bëgg ak pont i ponk ci le lëkkaloo bi Wow, ànd. waaw tey wax deug yalla su né ay en matière d'évaluation ñu ngi euh, remercier te féliciter wa chambre de commerce remercier président bi vice-président bi remercier la secrétaire générale madame Sangalé remercier équipe am yëpp parce que depuis 2010 ñu ngi liggéey waaye liggéey bu rafet a rafet a rafet vraiment la ñu gis ci suñu diggante ak chambre de commerce partenariat bu la dëgër la am partenariat boo xam ne ci satisfaction toute la coopération canadienne satisfaire nañ ci manam taxawayu chambre de commerce de Thiès loolu motax ñu ngi leen di féliciter loolu motax sank sama allocution ma wo acteur yëpp ñu mëna ñëw derrière la chambre de commerce liguer avec la chambre de commerce parce que xamna taxawayu la chambre de commerce ci développement économique de la région de Thiès loolu motax ñun euh sako bi nga xamné une coopération canadienne la bok ñun ñu ci ak chambre de commerce avec la chambre de commerce pour les acteurs yépp <coughs> voilà lan vous don ce appel <coughs> message bi ngay lancé. Mhm. lan message bi ngay lancé. le message bi may lancé comme ni ma la ko que nous, rek nous euh, devons regrouper euh, tous les acteurs économiques dans les différentes filières mu nekk filière carrière yi mu filière maraîchage mu nekk filière élevage mu nekk filière yi région de Thiès am am yi yi région de Thiès nous avons ñu euh, la chambre de commerce andak sako SACO pour que ñu mën relever le niveau leur niveau nous a liggéey ak ñoom mën leen jàppale ci yeneen de yo xamné sa formation. mën nañ leen ja jàppale ci fànnu recherche de financement mën leen jàppale ci fànnu partenariat mën leen jàppale itam xool naka la ay investisseurs canadiens ñëw taxaw biir région de Thiès parce que am na ay opportunité économique lool nag ci lëkkaloo bi rek lay mën a doon am na information yu bëri yoo xam ne waa Canada nañu ko xam tant que waa chambre de tant que waa Thiès génnee wuñ ko waa Thiès nag ñoom ñooy génne seen eh, seen seen seen seen information économique wane na ñun taxaw nañu pour liggéey ko waa bitim réew ci fànn bi fànn bi fànn bi fànn bi ñun nag fu su boobaa suñu taxawee ak chambre de commerce daañu mën a liggéey ak institution yi nga xam ne lu mel ni la représentation du Québec lu mel ni ambassade du Canada pour wax leen ne ah am nañ ay partenaires yu nekk Thiès lii la ñuy liggéey lii la ñuy liggéey lii la ñuy liggéey naka la ñuy def ba lëkkaloo leen ak ay entreprises yoo xam ne ñu ngi Canada pour que ñoom ñu mën a gën a bénéficier wu ci loolu donc coopération boobu daal lañ yaakaar ne incha allahu rabi daañ ci liggéey ak région de Thiès depuis 2012 ñu ngi def ay formation waaye nag dañu bëgg a def yeneen jéego yoo xam ne daañu mën a permettre ay entreprise ay hommes d'affaires nous xam ne ñu nga Canada ñëw investir ànd ak seen partenaire économique région de Thiès pour investir pour que l'entreprise yi mën a euh, bonjour je suis Cheikh Mbacke Fall euh, je suis un sapeur-pompier à la retraite technicien supérieur en formation automobile ancien chef d'atelier des techniques de réparation de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Alors, très bien. 15 euh, jours de formation en événementiel commercial. Oui. Euh, lan ngeen que li nga xam de la formation bi ak nan ngeen koy euh, apprécier. waaw je ma d'abord quand suis retraité donc je me formalisé pour reprendre une activité annexe pour ne pas sédentariser. Mm-hmm. donc j'ai adhéré à une association dénommé la C'est le regroupement des éleveurs intensifs de la race Ladoum à Donc euh, dirigé par un voyant présent dénommé Pape Ali Diallo, docteur Pape Ali Diallo. Donc, euh, donc désigné pour cette formation, donc je devais représenter euh, cette structure en, en, événement, en, en événementiel. Donc, euh, de fait, euh, cette formation était une opportunité parce que nous avons l'habitude d'organiser des foires. Donc, euh, autour de ce stage, donc, nous avons reçu pas mal de rudiments qui nous permettent vraiment, à point nommé, d'agencer tous les voies et moyens hein, qui nous permettra davantage demain à bien mener ce genre de euh, d'activité. Donc, donc, de fait, euh, ça nous a favorisé un euh, recomplément de niveau parce qu'à la base, nous avions certaines appréhensions de, certaines situations. Donc, quelques informations supplémentaires qui ont ajouté. Donc, ce qui permet de dire que nous avons été renforcés en capacité de connaissance. Donc, je profite de l'occasion à saisir pour demander que d'autres types de ce genre de formation soient élaborés dans différents domaines pour permettre vraiment de créer un stimulant et de faire de l'expertise dans tous les types de corps de métier pour un développement meilleur de la nation sénégalaise en général. Alors toujours euh, technicien supérieur, en retraite, vous avez euh, quand même servi euh, la nation, mais toujours en retraite et vous voulez toujours encore approfondir euh, des connaissances, quel appel lancerez-vous à vos, à vos pères euh, À mes frères, à mes fils, à, à toute la jeunesse sénégalaise, il faut toujours se redoubler d'efforts pour pouvoir savoir davantage, pour être utile davantage. Parce que tant qu'il y a la vie, on doit devoir s'investir pour être utile, pour rendre service à autrui. Donc ça, c'est l'essence d'une vie. Ne jamais penser dépendre d'autres mais cherchez à permettre d'autres de dépendre de, de, vous. Donc, Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.